Gambia salaamaaleykum you all know naka lañ koy defee all the time ñu ne gan danga koy a te man dama mun gan xam naa ne yéen a mun gan soo leen amee gën yi daan lu mel ni jéem loom ah il loolu leen ji ko si li nga xam ne nag mooy rotu mu def ak Bamba jamono ji tamit mu ñu nar a def ak tey ñun Bamba mu ñëw seet si ñu nee nag tey rek fu ma seet si dama bàyyi jéem mu waxtaan ak yéen léegi ñu wante ak askan bi. asalaamaaleykum. Gambian kalian ah, apa aussi ñëw seti seeti sa place bi macha allah li nga bëggoon lu ma ñëw ba Gambie xam naa jot you know waaye dinaa ko si dugal ñëw seeti sa place nga ne su ma demee ba bàyyi mixo nga di seeti place bi ñëw naa maa ngi ñëw dem raaw seeti seeti place bi waaye kontaan torop su ma ewee bi nag ma toog a ewee <laughs> you know dañoo respecté beeg waaw mais gis ngeen ji lu mu set rek. waaw léeg-léeg dama soxla ñu ngeen wàññi xëy na baa ngi laa dama wóoree. ji lii nu ko tuddee. wax ñu wax ñu. caméra bu man wax ñu mun nga sensé fii bi moo ko tuddee. ay yow xamuñu. ah, ah kay kon nag a da soo falee ngénte soo falee ngénte lii riis ah, na jeex na jéy fii mooy suñu saal fii lañ dee dalalee suñu ay gan balaa ñuy dugal si biir studio bi sometimes gan yi ànd ak seen i ay xarit ak am di jaama bu boobaa nag dañ dee tëj li nga xam nag mooy saal bi bàyyi fi xarit bi ak am di jaama bi bu boobaa ñu fii la réception bi nekk fii la ñuy dalale te it the same time dañ koy def show. d' accord daa show yoo xam da nga ñuy de mm-hmm. bu boobaa nga ceeñaat sa ci style bi studio bu mag jëlum foofu noonu sa Georgia Atlanta Georgia moo nekk si suñu biir place bi tey. jëy fi mooy saal bi. so from the saal ñu dem fii si biir studio bi fii mooy studio bi. ok maa ngi so studio baa nekk nii. fii la editing si ak yu ñu ñëw yëpp. est-ce que waaw gis nga. mën ko gis nga waaw euh, ñun ñoo ko ah. ñun rek ñun. everything ñu ngi si ñu waaw euh, ki ko dee defar mu ngi tudd Ablaye Mendy. Oh, so ñun ñoo maketal right now moo daf ñu defaral. bu baax ku bugg rek di ñëw xool yu mel nga am ko sa Nagigis. So free time at corner la feel like they fed the bank cut over at in shows. So sometimes when gis nit make a finger for never and la figure if see plus then they wanna change the whole studio. So finger I guess they feel either they did a show and better mama sometimes ah, but later could they change them outside. So for another time corner bo palm then they have news, then they have different different programs semester avenue corner bi so time semester avenue ko change ay wax ak nama wax ay wax so jëy <laughs> eh, office bi mm-hmm. fi am lu library sort of gis nga ay atlas la ay book yeneen ay dictionary yaa ngay gis because journalist itam dictionary su ko defee ñu so man wàññi di weekend bi small but lu nekk dañ ko dee put in place Yusufa naka sa Gambia. mu ngi neex. you be <laughs> fine. so what can you tell Gambians? That you hearing your Gambia? Speak Wolof, Wolof. Yeah, I'm enjoying it. Oh, Maggie, enjoy ko. Over there. loo lekka. tey. Uh, nen. Hmm. and corned beef and noodles. Why dégg naa yow ebe rek nga bëgg a. nga bëgg a ebe. Lilian, iya. iya, gis ngeen ko jéy dafa jàngal xale yu olof nii laa ko dee buggee. fii mooy suñ production room eh. it. gis nga semestre abedu yi yeneen um, ak yeneen yi nga dee gis yëpp. fii lañ ko dee producer. ok la ñoo defee yëpp invité ko fii. nga sometimes nga toog rek news bi na. waaw programme bi na. fekk dañ ko toog fii édité and the young people ñoo ko edit. young young young people ñooy toog fii édité ko. ñoom news. waaw ñoom Yusufa ñoom Aida Aida ñu ngaa gis ni moom si university bi. waaw si second year. Ah. waaye dafa caméra dafa edit dafa dafa record dafa direct programmes as well. so ñun Gambian Talents ñu ngi leen di only television nen rek MC online television ñu ngi am attachment bu ñuy def mu naan inside naka internship boo xam ne ñu ngi jàngale web design graphic design bibliographie um, uh, accounting ñu ngi jàngale journalism ñu ngi jàngale lu bari for free of charge without charging anybody right now ñu ngi am about 45 interns ñoo xam ne dañoo ñëw fii ñu jàngal leen ñeneen ñi suñu yeneen staff laaj bi si bopp ñaari. waaw correct na mu ngi liggéey one of the biggest media house yoo xam ne. anything about giving marketing, like, you know, no, no, and that opportunity he get it through Gambian talent. Fashion. So a lot of lot of opportunities we have prevailed. But I mean, I'm soon linga have moy Gambian Talent Foundation. Uh, whom I gise kitabu ni comedian ni make or hands ten thousand dollars. I'm on next. Why don't I don't am ne ko de muna boss la gomiti. ba pare may ko musique experiment ba pare tamit may ko ay yeneen gadgets yoo xam ne dafa dimbale ba si production am. so fii mooy place bi fii la ñu nekk ba pare ñu ne fa ay coffee mug des nga gis coffee mug sànq ma des wàllu woon nañu. ñun ñoo ko dee def soo buggee sa nataal ci kër whatsoever loo si dugal loo dugal mu bindal yëpp ñun ñoo ko dee def di nga gis ne som daal ñeneen suñu ay sarax oo ay dëj yi dañu lay wax oo ay ngénte oo takka dañu lay wax ok dafa la ma coffee mug ko gassy or whatsoever. So we print all of those things as well as t-shirts. Yes, the year in house like whatever. Man, I'm going What I interest if you Why is this studio? We want easy. su ko defee gars yi mën a enjoy. par exemple bisim tànn la am classe soo gisee bu ko defee bu nekk kan mooy interview kan kan mooy def lan ak lan ak lan yëpp la ñuy bina. dëgg la soo ñun il faut ñu génn ne dañ ñu mën a gis a ndox. doo dugg ak ndox doo dugg ak lekka am nga te édité bi dafa concentration So we are growing as a family. Yeah, really good. So like that, man. You're welcome, yeah. So we went to my business. This is for my little corner. Mila Negra. My office my okay. So the same time, see them for the shows. Okay. Wow, well, if I depend on the show, because sometimes I'm done like my mind, I'm guest war ko interview ay na mu ngi am already news am ku read ko loolu warut ñoo stop from doing our show dangaa gis fii la ñoo just change taal ACC rek mu on rek fii mu nekk sa own show yi boppa bi nga xam ne moom nga bëgg a def so basically this is our place so Jay. Ah, thank you kontaan naa kontaan naa trop ma ñëw fii gis place bi mos na la ma faawus bu xëy yaa ngi dem nag ngi yaa sayas nga dem foofu. Mm-hmm. ba pare yow tam wax nga ma ko waaye dama kontaan de yow moom su ñu def maa interview <laughs> def ma jaar fii. <laughs> Une fois, quand tu en mashallah, pause, you're doing a well job. Job well done. Thank you. Yang naya allah def place ni ngeen ba ñëpp di leen dégg ah, si barke Seydina Muhammad. yàlla ya barkeel place yi. li ngeen ci def yal na ko suñu borom mi nangu. léegi yow si amee xaalis yal ngeen ko jëriñoo yal na boo leen ko ak di leen jaale tam luñ bokka. Ah. every oncle every mbay mu gaañu. waaw macha allah ku baax la woon. mu ngi rek. beneen um, journaliste dem na. Mm-hmm. na Alay Seet Camara. Mm-hmm. after Alay Seet Camara moom tam moom la woon. Mm-hmm. so people dañ ko dee seet. comme Alay Seet Camara. yal na suuf ayof si kawam. waaye di jaale jaale famille yëpp waaye xam naa suma mag moom demoon na. aji aw demoon na foofu si waaw Waalaikumsalam. Ah, ni asalaamaaleykum. waaleykum salaam <laughs> ah, la moo special gan bi xam ngeen ne seeti woon nañ ko kiram mu so jamono ji dafa just high high. rek pop in. waaw yéen it soo ñëwee ñëw leen gis place bi ah, comme nag ñeneen ñi wane online bi xanaa gars yi fan lañ nekk si benn studio bu ndaw ak yi a whole place is here waiting for you so don't miss Gambian talent. we go. <laughs>